xaw ma beneen mbaru géej waaye koy daan feree na ko waaye bu daanaatee keneen force Ahmed Aïdara day joxe ki Ahmed Aïdara da koy joxe kon tey gaaw gu ree mën a waaw ba keroog lépp di xew waaw ndigal nag arbitre ba sifflé na gaaw gu dee moo ñëwoon ginnaaw Dalifort ndigal moom lañ jàkkaarloo école de lutte Balla Gaye dëgg la ñaari ndaama leen ah ndigal ay kawas a sol kawas ñu def nii xool ñu ñu reporté ko fii reporté ko fii kay lii moo a neex ay kawasa ndigal sol summi ko. ah summi ko de. ay kawasa solo. mais Kaaw Gourdin xanaa daa sekk macha <laughs> man de Kaaw bi mu solee ay dama koo xeeboon. waaye fi ne nii. Ah. ah. tol na lu neex macha allah Kaaw Gourdin ngemb de tol na lu neex macha xale bi. mi ngi noonu. ndigal ngi noonu. mu ngi naan gupp fi gëjoon digganteem ak. ay waay xamal course ba Lamine. noonu. Lamine Golo ngoog ndeysaan. Kaw Gourdin digganteem ak mujj ah. waaw la 15 la la woon. la 15 août la moo ko tëggoon. loolu archive mujj a bëreel. Ah, ah, sa ko Balde. le 27 novembre la woon. Samba ya ko tëggoon. lamb jaa ngi waaw. ndigal moo bëroon ne Tafa Gàddaay. waaw. maa mbotoon waaja mbot bu rëy ba damay fàtte tur ba. waay day ndigal mi moo bëreewoon ak ndongol ak soq. ndigal mi. moo bëreewoon ak Sako Balde. waaw ndigal mi moo bëreewoon ak Noiro. bari na ay kombaam te ay defetam néew na. na waaye xale bi muy jàkkaarloo Kaw Gourdin. moo bëree Thiat Daouda Fall. daan ko Albarka Kayre. daan ko Yankaw daan. ak xale nga xamante bi nii mooy <laughs> mooy nu mu tuddati. Eh, waay waay eh, ak Baye Ma Ndiaye. ak Sidi Diamagan. waaw ak Caporal. ak Samba Ndelen. dëgg la <laughs> Rouge Bordeaux numéro 2. Desiga daw na fàqmaan la la. Desiga te fii raw lool musiba de. musiba lew too kaawa ñu woon ginnaaw. <laughs> a fiaro Sathié Sathié sa ngi ne la taxaw kon nañ jël jooni jooni gi waaw jooni jooni li Lirou Diane fils de Balla Gakou 2 ca Daouda Fall Lirou Diane la mu kuk sunu moo garaaw <laughs> naa ko victoire na ko ko tay xam jaale solo kos mo ay ba soxal ña daa tooñ yaa tooñ wax na dëgg fii moo a yow bu ñu taxawoon fee gaañu eh, waaw fii ngi lay tooy te fii arbitre sifflé la Ndiaye ndigal ak Kaaw waay. arbitre sifflé na ndeysaan Modou Anta. arbitre sifflé na. Kaaw Gourdin jóge ci victoire. waaw 14 août 2022. waaw Modou moo ko tëggoon. dëgg la moom ak Baye la woon. moo ko njëkk a jox défaite. ndigal jóge ci victoire. waaw 27 novembre. <laughs> Samba ya ko lamb jaa ngi nii arbitre sifflé na tey Sidi boole. ñu ngi nuyu waa diaspora bi ku ci mel ni ñoom Mbaye Toldo Serigne Ndour. mais mais mais mais ndigal daa mel ne nag dafa diis. ndigal waaw. ah ab luur la de. luur la de luur dëkk woon mais entraîné moo tax ndigal wàññeeku di. mais bu njëkk ëppoon na nii. ëppoon na nii dëgg la. ndigal nag nee na ko tey dugg géejewaay duggaat géejewaay moo ñu boole mais du laam. li ma jaaxal mooy ndigal mooy déplacé wu de kaw moo doon déplacé wu ak ndigal. Ah, parce que ndigal pied droit la jiital. waaw. fausse garde ak garde normale ndeysaan ñoom ñaar ñooy bëre nii kaw guddi ak kaw Galso 95 sama xarit bi amul yaa xalaate maa lay bëgge ndeysaan mbokkam yaayam sa Thiès ndeysaan waaye kenn du moo njaay directeur Abu. di bëgg ñëpp def naa ko te yàlla tax. loolu ko comme lu baax nga def nag moo waaw man boo ko waxul dinaa ko wax. ndax bu ko defalee si waaw yow ko defal dëgg la man la ko defal dëgg la Balla Gaye la ko defal dëgg la Modou Lo la ko defal ñëpp la ko defal ndeysaan dëgg la moo lu baax dafa rafet moo tax lu baax dafa rafet de laay ndeysaan yàgg na ci réew mi ak ci bitim réew dëgg la Babacar borom marché Petersen waaw sa waay la tey dama faa yóbbu champion bi Modou Anta waaw ndeysaan mu sanseel ko lu rafet oh, xalama loolu Babacar Abo ngi nii. waaw war nga ma fa war nga ma faa yóbbu noonu. faaw ñu ànd fa war nga ma faa yóbbu. Xalil xam na ko. ah Xalil maa ah, Xalil ñam na ko. sañse na ko. Xalil xam na Babacar. <laughs> Ah. ñu ngi nii di ree yëngal na bopp bi ñam na ko kon. <laughs> ndeysaan Babacar nawalu guddi la de. ah waaw baalu ko. ku ko ku daj da ngay yaakaar ne yow kese daj. yow kese yaa daj. waa ndigal ak kaaw mi. buñ ñu nax dañ bëre. mais est-ce que nga yaakaar combat bi dina gaaw. noonu gaaw nag. xanaa kenn xeex ñu def la benn cong paquet. te te Modou Anta comme waaw kay mu ngoog melam cong la. waaw mais bu dul loolu. waaw buñ saqantee gi ñoom mën naa yàgg. mën naa yàgg kaw nag damaa yaakaar bu xeexee moom. waaw bu dajee moom. la day jéem a jàpp ngeen bële. da koy wet da abu. waaw cinq minutes lañ bare. mi temps songoo ñu. laalee wu ñu la ñëwaat nan. waaw ndigal la. Modou ñëwal waxoon sànq. waaw. mooy ndigal 27 novembre la fi gëj diggante ma Sakho Balde dëgg la Kaw Gourdin 14 uh-huh. août la fi gëj dëgg la digganteem ak Baye Mandiaye Guédiawaye uh-huh. ndigal nag daanaan la Kaw na ay victoire Kaw mu ngi mel ne kuy def te demut waaw waaw arbitre bi waawaat na leen arbitre bi la waat na ñi ngi demaat ñi ngi demaat dañ jël seen responsabilité ci combat bi ñoom ñaar jot na parce que combat bi waaw amateur yee ko doon xaar. bëgg naa dem de. déwén a gis. nii nii leerul. <laughs> abu. abu a xaritu mbul ak Doudou Sané. <laughs> waaw. Eh, jël ko jël na. bañ ko bañ na. bañ ko bopp. waaw. teg bopp nag poson la. daa diis. la. ndigal mën naa bëre waaye day bañ. dala yéen combat ndigal jàppoo arbi sukkal. arbi sukkal. kaawoon aywa arbi te dégg. <laughs> arbi doon it. a génne. eh ndigal kaaw génne na ko. <laughs> kaaw day jéem a accélérer combat parce que cinq minutes daa gaaw. dëgg la bu jeexee prolongation <laughs> ah. Ah, kaaw. arbitre nee na ko taxawal bëre. dëgg kaaw door na. ndigal déplacé wu kaaw ak kaw dooran na ndigal daw na jël na ndaje jëlante na en na ko takk ko da daan gaa na ndigal bolox ko génn na awa <laughs> ah, ndigal <laughs> na de kat kat ah ah ma ne làmb ji ba jeexe loolu bu jeexe loolu soof de ndigal ak kaaw arbitre nee na ndigal taxawal nee na ko bàyyi ma <laughs> ndigal nee na arbitre bi ma. <laughs> ndigal bi ndigal ak kaw jàppante nan jàppante nan ah saako yooyu am na fa xewoon de daje nan abu kaay jege si ma. ndigal daa ndigal ak kaw naa la ndigal a ngi door bëgg a jàll combat ndigal ci sengoor la jàpp sengoor <laughs> ndigal la kaw ana faqat wër ndomba Kaawa ngi dóor. Kaawa ngi koy ñam. Kaawa koy ñam. Kaawa bëgg na koo génne bu ko génnee day yéex. ah eh na ko attention. ah ah, ah ah ah ah kan mooy am avertissement ndigal wala Kaaw. ah commandant Thioune gi taxaw. sama xel ñaaw na kenn eh, kenn du lëmbe. ndigal ak Kaaw ndigal dem na ca jàppante nan kaw mbëkk na ko kaw mbëkk na ko mbëkk kat kat daa ni mbëkk am na de wala ndigal demal bëre ah moo ma jaaxal c'est même du kat waaw kat nee na ko mbëkk ndigal ndigal baal arbitre bi te bëre arbitre c'est même du tolloo nañu de. 4-4. ah la. ndigal taxawal nga bëre. ñi ma ndigal taxawal nga bëre. kenn du arbitré sa bopp. ndigal moo war a bëre. parce que arbitré sa bopp moo tax nga jël ñaari avertissement day génn ku génn ah arbitre sauvé lamb bu mu jeex de sauvé lamb ndigal ngay jox wala merci waaw d' accord naa ndigal na moytu saako yi ndigal na moytu saako abu jege si ma. ndigal na moytu saako yi. na bàyyi li muy de yoonam newu ci ak ñor kaaw Gourdin kaaw da koo bëgg a génne. dina génn lamb dina jeex. bu génnee lamb ja jeex na ko mu bañ. arbitre àtte na mi-temps. eh eh door eh door door. guerre force guerre. guerre waaw. guerre. daw nañ daje nañ. ndigal takk na ko kaw bañ na plaqué na ko. eh rëpp na. jógal nañ. waaye kaw mën a bëri. Eh. kawaay ndaanaan waaye. waaye combat bi waaye kawaay ndaanaan wala kenn du ndigal. waaye xale ya mën a bëre. eh biit daa diis. biit. biit. saaku ya saaku ya saako ya saako ya boo génnee mu jeex boo génnee mu jeex waaw ndaanaan la waaw waaw eh, lamb ja jeex lamb jañ ca ya <laughs> waaw kaaw da koo bëgg victoire noo baax na ndigal dafa bañ ndigal laa bañ. mais bañ na. bañ na bañ na. lépp fa di daaw ak bañ na mën de bañ na. dëgg la kaw koo bëgg a génne ndigal bañ. mais nag lii waa CNG bi war nañ cee jël ay matukaay. waaw waaw waaw jàpp nit puus ko ba mu génn. kaw gur de daa bëgg a génne ndigal te ndigal njëkk ko puus mu génn. kaw am avertissement. kon seen i matukaay. ci matukaay bu baax a baax ci la mbër boo génneelee sa bopp ñu avertir la la poussé nga génn ki la pousse ñu jox ko ah parce que parce que parce que ndigal am na ci avertissement loolu ci kaw gu de daa jàpp kaaw pousse ko ba kaaw génn kaaw delloo ko ko delloo ndigal ak kaaw mais kaaw day fatt ñaari côté yëpp fu mu aw mu fatt ko kaaw daa yàgg a Kaagu de nee naa la du mag mais daa teel a bëre. arbitre atte leen andi oh, mu ngi sauvé combat bi de. gis nga ñun waxkat yi kenn moomuñu. mu ngi koy sauvé boo defee lu rafet dañ koy wax. dañ koy wax arbitre bi mu ngi sauvé combat bi ah. bëgg na arbitre bi daa bëgg leer. dëgg la bu ko defoon fa la leen nag prolongation lañ dem nii ah. ah, ah mu jeex de. prolongation bi léegi mu jeex de. mbaa ah, bu jeexee dañuy niil quatre avertissement quatre avertissement ndigal ak kaw waa géej waaye ngi la taxaw njaga Balla Gaye jeex na